lu toll ci juróom benn junni cay nit yoo xam ne fa ñu nekkoon jële nañu leen fa am na feneen fu leen yóbbu dañu leen a déplacé yéen a kaay gi nee na lu ëpp fanweeri école yoo xam ne daat nañ koy tëj ay yéen a kaay gi di Dakar nee na Salif Sadio bay boobu def ndànk jamono ji ma ngi jéem a daw moom Salif Sadio ndax xam na ne gars yi jekku nañ ko ndax am na ñetti baasam yoo xam ne nangu nañu ko yéen a kaay gi di La Tribune nee na jamono ji armée bu Sénégal jekku na lool ñi nga xam na ñooy rébellier moo tax Salif Sadio nan lay def ba génn ci mbàlle gi jamono ji moom lay jéem ay yéen kaay gi di Direct News xëy di wax nan lay def ba génn ci mbàlle Sall gi moom tamit ci lu jëm ci wàllum jafe-jafe yi nga xam ne Sénégal am na ko ci lu jëm ci wàllum ndox maanaam problème national la ndox fii ci réewum Sénégal ndax li nga xam ne moo jëm ci wàllum qualité ndox mi bon na genn xeetu bon koo xam ne fu ko waaye nat daan na koy passé fii si Sénégal ñàkkum ndox gi nga xam ne moo am ci réew mi tamit doy na waar bëri na ñoo xam ne mënuñoo jot ci ndox waaye nag bu loolee lépp passé tamit fii ci Sénégal maanaam facture yi cher na genn xeetu cher goo xam ne jéggi na dayoo yéen kaay gi ne nag ñi nga xam ne ñooy waa CNO maanaam jafe-jafe yi nga xam ne moom la CNO di teg askan wi loolee ci boppam moo doy waar yéen a gi xëy duñu xibaar nan ñu màggalug daaru musti gi nga xam ne samedi jii ñu génn la ñu ko doon amala ma ne la ñàkku ndox si bopp mooy yàq màggal gi yéen a kaay gi da la soleil na ñëpp nangu nañu ne maanaam jafe-jafe dafa am ci lu jëm ci wàllum ndox fii ci Sénégal surnal bi xëy ci xëta mu njëkk nee na loo dans tous ses états yéen gi da la soleil nee na ab dossier boo xam ne toll na si juróomi paas yoo xam ne la ñu fay waxtaane mooy na giraawali keek njombeeg jafe yi nga xam ne moo am ci wàllum ndox ci biir réew mii di Sénégal yéen gi di réew mi quotidien daal xëy wax ne moo ne day ci monde rural bi ci kaw gi lu toll si juróomi téeméer ak juróom fukki forage yoo xam ne daat nañu ko fay def yéene kaay gi di bés bi nee na de l'eau tey jii ci ndakaaru la nga xam ne nag la ñu fa war a nag waxtaane muy loo xamante ni maanaam lu jamp la lu munta xaar mooy accès à l'eau maanaam askan wi yëpp daal nag jot ci ndox ndox yomb ci ñoom ah. waaye nag tamit jot na nag ñu daal di fay waxtaane li nga xam ne moo jëm ci wàllum assainissement ndax fii ci réew mi waaw ñëpp xamu nañu ne maanaam nag bu tawee rek nit ñi daal di tëmb ci ndox mi yéene kaay gi nga xam ne mooy élection législative yi la ak lu jëm ci wàllum parrainage bi journal bi nee na nag ndax yàlla opposition bi jamono ji maanaam ñoo ngi waxandoo genn kàddu ndax opposition bi dañoo lànk ba tëdd sa naaj waa ci lu jëm ci wàllum parrainage bi ndax nag xam ngeen ne maître Abdoulaye Tina ginnaaw bi muy yóbboo état bu Sénégal fa mbaxana doonee benn sa CEDEAO na naqarlu li nga xam ne mooy parrainage bi CEDEAO dañoo joxoon dëgg ki nga xam ne mooy maître Abdoulaye Tina na nag lii nga xam ne mooy parrainage bi état bu Sénégal may nañ leen lu toll si benn weer ngir nag ñu daal koy xoolaata waaye nag ba léegi ni daal furage li na yéene kaay gi di enquête xëy dañu xibaar naan ñu société civile bi nee ma ñoom Guy Marius Sagna àllarba ji nga xam ne moom la ñu dëgmale danañu amal nag ay doxi ñaxtu ngir nag ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne mooy parrainage bi ndax ñoom dañoo jàpp ne bokkul ci démocratie te nag ñii nga xam ne ñoo fi nekk dañoo andi parrainage bi ngir nag def ay njubla nga yéene kaay gi di Sud Quotidien xëy nag wax ci Khalifa Sall mi nga xam ne waa coalition Yewwi Askan Wi nee nañu Khalifa Sall la ñuy jël investir ko def ko seen tête de liste ndax nag loolee du njombe yéene kaay gi di Sud Quotidien laaj si nag ay boroomi xam-xam ñoo xam ne seen xel màcc na lool la ci lu jëm ci wàllum yoon Mamadou Aliou Diallo mi nga xam ne jàngalekat la ci lu jëm ci wàllum droit public ak na Ngouda Mboup mi nga xam ne moom tim jàngalekat la ci lu jëm ci wàllum droit public ñoom ñaar ñëpp nee nañu Khalifa Ababacar Sall bu jiitee liste Yewwi Askan Wi ñu daal koy nag moom ci Khalifa Sall na ko mënoo ci élection yi nekk ci liste bi ñi ñu sanctionné rek nag ñooñu nag maanaam ci boppam ñoo mënul dem ci élection yi waaye nag ñesa daj ñëpp di vox ñu xëy fekk fa Moustapha Diagne bu Macky 2012 moom nag nee na élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la bennoo nag warta def séddale bukki maanaam nag yenn ay parti rek jël député yëpp daal di koy ngar daajoo yéene kaay gi du yoo xam ne dañu koo sàcc yéene gi dina doy na waar journal bi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Mamadou Ibra Kane mi nga xam ne moo jiite woon kuréel gii di CDEPS CDEPS nag di kuréel gi nga xam bopp kuréel googe la nga xam ne nag moo ko waral kenn koo xam ne ab employé la woon moo ko yóbbu woon fa mbaxana doonee benn waaw moom Mamadou Ibra Kane ñu daal koy tëj lu toll ci benn weeru kaso journal bi nee am ñu koy wax criminel la yéen a kaay la sa ak les échos xëy duñu xibaar naan ñu am na benn étudiant bu doon jàngee ci université virtuelle yu dafa daal xaru ak buum la jël takk ko nag daal di sandaamtalu waaye nag ci statut WhatsApp am di xaro yéene kaay gi di estat xëy nag ci éliminatoire mondial 2022 Égypte Sénégal match barrage yi journal bi nee na lu toll ci fukki gaynde yoo xam ne jamono ji ñëw nañu ñenn ñi nag tey ji la ñu ñëw ca Marrakech fa la ñuy commencé seen i cukki-cukki yéene kaay gi xëy duñu xibaara naan ñu nag Barcelona ni ki démb toroxal na Real Madrid te ñeenti bal ci dara lu ko dóora yéene kaay di sunu làmb xëy samp ab laaj nee na combat nga xam ne moo a a